parce que man dama gëm ni Sénégal mën nañu éradiquer le chômage au Sénégal Je laa gëm théoriser naa ko wax lañ ko exposé dans un programme gouvernemental jox ko premier te avant loolu wax naa ko est-ce que c'est opposition ah, absolument non l'opposition. opposition. waaw ñun xam opposition fait opposition bo. mais man. est-ce que nous bu doon comme nous, est-ce que ñu jël mais ñoo xam nu ñuy opposé woo. man ni ah, ma opposé la non attends booy

conscientiser leen. waaw ne leen ñi fi nekk ñi cuune lañu. Mhm. ah. Mhm. jox leen ñoo aay ñooy dox. loolu de opposition. man du sama opposition loolu lan la. xam nga luy opposition pour man dañ doon dem élection bi 24 mars. waaw ma am candidat jàppale sama candidat ñu gañe ko. waaw kon peuple sénégalais bi nee na ma. waaw yow ak sa candidat doyu leen ñu. dem leen opposition déglu rek. dem leen ngeen opposé ci. opposé déglu ma. dem leen ngeen opposé ci équipe bii moo ñu doy équipe bi nga xam ne moom la sénégalais yi tànn ni moo leen doy du man maa leen di wax ne équipe boobu cuune la sénégalais yi ñooy constaté seen bopp est-ce que équipe bi cuunee la wala du cuune attends attends déglu waa déglu ma dangaa def yàgg na yeewu askan wi non mais am na ñu xam tey loolu mooy erreur u beaucoup attends Doudou waaw d'accord loolu mooy erreur u beaucoup d'hommes politiques mooy yaakaar ni ñoo gën a yeewu askan wi c'est une erreur monumentale li la ciy jox firnde ñi nekk ci parti politique ñi matuñu 10 pour cent de l'électorat doo leen gis ci mbedd du ñu sànni xeer du ñu marche du ñu saaga ñi ngi toog seen kër bu ñu nee tey la bu ñu jullee fajar. Mhm. bala ñuy julli tisbaar def li ñuy def. Mhm. loolu maturité politique moo ko indi. donc du man maay wax ni ñii ay cuune lu ñu xam nga ñan ñoo koy wax yow boo doon jënd kilo ceeb cent francs Ni digone la ni la bu ñëwé def ko 50 francs ñëw kilo ceeb bi dem 150 francs nga ni ñii kat cuune la waaw bu ñu courant amoko nga ni ñii lañ ma waxon defuñu ko lolu prérogative askan wi dañu bàyyi ku nek ak sa prérogative. kan moy nek alternative. moom la lay wax ni justement xam lu alternative bi. waaw ah. dañu génné élection présidentielle jëm élection législative. waaw ah. fii may wax ak yow maa ngi créer sama alliance politique pour nara dem élection législative. Texte teg sénégalais programme électoral. xam programme quel discours. attends mom la lay wax ni justement. xam programme moy lan dañu dem élection législative ba dem élection yële passé am ñu doon wax ni dañu bëgg assemblée de rupture. Hmm. demaatal ci sortie yi ma def yeb dama leen wax ni li, ma leen wax tant que defu leen ko rupture du am xam lool moy lan. moy lan man personnellement ak suñu programme dañu gëm ni. 165 députés au Sénégal ëpp na. nañ à 100. 100 Wow. 25 représentent les Sénégalais de l'extérieur. 75 yi on découpe le Sénégal en 75 circonscriptions électorales. Par exemple, si vous plateau, Médina Gueltapé, nous avons ben député HLM, hmm. ceci, cela, SICAP, Institut de Grand Yoff, ben député qui am ngor yoo foo ko député ngi comme en France. waaw ben député bobu parti bu mu neex nek amal sa candidat Sénégal bu mu neex individuellement nekal candidat sénégalais ñoo lay fal comme ni ñuy actuellement le maire au suffrage universel direct. Mm, mm, mm. supprimer les listes nationales parce que député bu ñu fal ci liste nationale du député askan wi. président bi wala le secrétaire général parti mom lay neex mu def la ci liste nationale. Nous calculons le nombre de voix au niveau du département nous avons nga am ko à l'assemblée mais si ko calculer quotient ba ñu am tax yow nga député du député un député ce koy à la base troisièmement il faut supprimer le salaire du député remplacer ko par des indemnités de session Doudou tu es journaliste hmm. Nek député warul tax doto don journaliste hmm, parce que le euh, député 12 mois de l'année 2 à 3 mois la est weer wu dee ñu fay salaire bu mérité wuloo tu es journaliste tu es enseignant tu es médecin surtout dans un pays qui manque de tout qui manque des cadres kon cadre yooyu bu dee at mu jot nga jël ci lu mat cent génne leen fa ñuy liggéeyee ni len dem len togué assemblée pendant cinq ans nek ay chômeurs yi ñuy fay hmm. loolu japp naan du jëmale réew kanam légui bo nekkee médecin da ngay continuer di liggéey bu assemblée woté nga dem liggéeyi nga dem assemblée so paree ñu fay la ay indemnité de session mais indemnité de session mën na am sax mu mat salaire ou mu salaire député mais fekk na ni au moins mérité nga ko. Hmm. lool bu boba ñu xamni député bi kat mérité na au niveau des partis politiques 400 partis politiques pour le Sénégal c'est pas juste. Hmm. il faut limiter le nombre de partis. Hmm. mais soo limiter du arrêté ministériel du décret présidentiel moo koy moo koy moo koy rationaliser liko rationaliser moy dañuy dem à des élections législatives les hommes politiques war nañ nangu ni tout parti politique liko ko tax a conquérir au suffrage des sénégalais mais xam nga parti moom musu dem élection te duñu dem élection n'est-ce pas donc liñuy wax moy duñ ko def liñuy wax moy ñi ngi dem élection parti bu nanguwul dem ci élection yi bok on t'élimine dissoudre la moy première mesure deuxième mesure parti bu dem élection te mënoo am ben député tu disparais comme en Allemagne. mais d'une coalition comme. déedéet coalition c'est interdit Mon premier point on interdit les coalitions de parti. kay loolu gars yi ko mais l'olé lay war am nak, soudé ni liñu wax gëm nañ ko ñun dañ ko wara a Il y' a pas de coalition de parti man ma ngi nek ci parti B suma démé dugg ci parti A bi nga diriger parti B bi existé tout. parti B mo fi nek. et en réalité c'est c'était Doudou tous les partis qui se réclament du libéralisme tous les partis qui se réclament du socialisme tous les partis marxistes-léninistes Si nous bu ñu tu as 3, 4, 5, 6 partis forts mais ce n'est pas des partis politiques donc interdire les coalitions obliger les partis ñu dem élection dissoudre leen parti élection député à partir de ce moment l'État finance les partis politiques voilà ce suñu nous am une assemblée de rupture am crédibilité di représenter sénégalais ci loolu la ñu jëm et comme xam naa ni man sénégalais loolu la bëgg parce que li ma la wax ni yow mi yaakaaroon man leer na ma ni proposition da nga ciy ànd. boo génnoon ci mbedd mi sénégalais boo laaj mu ànd ci parce que les sénégalais yaakaar nañu tey ni député amul njariñ et pourtant député am na njariñ mais njariñ ba wanewu ko donc programme boobu nga xam ne ñun moom la ñu porté je sais que beneen parti boo ko proposé du ci ànd ak yow. moo tax ñu dañ koy porté jox ko les nouvelles absolument jox naa ko. ko parce que bi dégué président de la république muy wax ne day convoquer les partis politiques pour des concertations. pour assainir la vie politique ma jox ko ko. ak yeneen ak yeneen yoo nga xam ne ci bañ mais en ce qui nous concerne en tant que parti loolu mooy suñu projet jëm ci assemblée nationale. Ah, buñ ko defee am assemblée opposition sànni xeer opposition raay raayal non du raay raayal non opposition de vérité. waaw ah, de vérité dëgg la parce que nit ki c'est pas parce que ànd ak que baaxul c'est pas parce que ànd ak que mënul dara je donne un exemple man mën suis dans un gouvernement avec Moustapha Mamba Girassi. mu suis porte-parole du gouvernement Je suis porte-parole de la présidence Nous liggéey en parfaite communion di def une conférence de presse commune et tout tey parce qu'il est ministre de l'autre côté suis nekk fii de ni mënul dara non tu hmm. prends le général Birame Diop xam ne chef d'état-major général des forces armées tous les militaires dañ ko apprécier mu jóge fi ñu yóbbu ko Nations Unies mu def falam fay Hmm. de la justice moi je suis témoin en 2011. on lui donne des instructions arrêtez le dieu. il dit je parce que ce n'est pas conforme à la loi ni à mes convictions. 2011. Hmm. du temps de après le 23 juin. Hmm.